finalement Sonko sonco, si na Sénégal dañ leen ci mosol tuuti rek ngeen xool oh là là qu'est-ce que vous ñu bind ko mu rafet ba Au Sonko bu ñu xoolee ci ginnaaw di leen gis authenticité avec toutes les informations voilà le flacon oh là là tout fait parfum bi dafa léger ba paré ànd ak fraîcheur bu extraordinaire wallahi achim ñi défaré ko aussi à base de musc blanc le parfum il est à base de musc blanc aromatique mu neex lool di dégager xet bu extraordinaire kon ñu xamné ne Nina Sayed bi ñu indilee Chaka indil ñu Makeda daf ñu indil tamit Osongo mu nekk parfum yu extraordinaire neex lool ba jéggi dayo mais li ci gëna neexati mooy loo bi ngeen gis yépp ci ay parfum lépp lu ci jaay rek les bénéfices dañ koy yóbbu ci ñi nga xam ne si ñooy les familles des détenus politiques kon information bi ñu war a retenir mooy nii naa sax Sahel dafa ñëw jàpp ci combat bi comme ni ko patriote yëpp di defee bu dee da nga nekk Europe da ngay commandé deux jours ñu livrer la sa parfum que ça soit Osonko Makeda wala muy Chaka bu dee fii ci Sénégal tamit am nañ benn point de vente dinaa leen bàyyi numéro bi alors ô Sonko l'ennemi juré du système